de Lampita. De Lampita dans votre journal People de la semaine, à la présentation, C'est une attention sur le canal 33 l'RL TV, canal 8 TV Orange, canal 28 en Gambie, Eutelsat 16A, ou sur les réseaux câblés ou sur l'application l'RL TV. Toujours ñu indi leen yeneen information yoo passeport diplomatique xam ngeen jamono yi ñu genn yépp affaire passeport diplomatique lëmbee na Sénégal dem nañu ba kenn xamétul ndax passeport diplomatique yi baax na kenn xàmmeetul ndax passeport diplomatique lu mu représenté woon loolu lay représenté wala représenté ko ba bi ci njëkk a feeñ maanaam mooy scandale bi nga xamante ni feeñoon na ci ñaari député yooyu di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ginnaaw bi ñu tuddee woon seen tour ci wàllu faux passeport diplomatique comme ni ma leen ko waxee woon ñoom mosuñu defar faux passeport diplomatique mais seen passeport diplomatique lañ doon utiliser di def ay faux visa donte ay député la ñu woon nag dafa am lu leen protéger woon muy immunité parlementaire bañ ñu yëkkatee seen immunité parlementaire bo batay déggu dégguñu juge convoqué leen mais jappalé ni que le 21 décembre bi ñu jëm juge bi convoqué na leen dinañ dem jàkkaarloog juge joxé ay explications mais batay dafa am benen scandale bo xamanteni mi ngi ci passeport diplomatique yi nga xamanteni ni secoué na Sénégal jamono ji ñëpp mom lañuy wax mais jappalé ni que suñu sukkandiko suñu enquête lepp lo xamanteni jëm na ci walu passeport diplomatique yi ñuy wax nañu jàpp ni ni le ministère des affaires étrangères ni la présidence ne sont pas mêlés oui président de la république qui a signé l'ordre ordre ministère des affaires étrangères passeport diplomatique enquête enquête enquête pour l'affaire des passeports diplomatiques qui prédomine l'actualité nationale détient son lot de secret ay secret yu une enquête minutieusement menée et a découverte a été effrayante ni le ministère des affaires étrangères ni la présidente de la République n'est impliquée. le cerveau est le secrétaire particulier d'un grand marabout c'est la présidence qui a déclenché l'enquête et faire infiltrer des agents de la DIC tay jàppale ni que lépp loo xamante ni na ci walu passeport diplomatique yi ci done cité ministère des affaires étrangères jàppale ni taqeewuñu ci lalew ni ñii di président de la république taqeewuñu ci lalew ndax té président de la république ñoo déclenché ben enquête yónni ay agent DIC infiltré mais bi ñëwé dañu fekk secrétaire particulier un grand marabout mel ben serigne bu mag mag secrétaire mom mo moo cerveau bi ba tay ji suñu sukkandikoo ci enquête bi ak suñu information lepp lo xamanteni indil nañ leen ko muy lan Moui Ben trop la boo ensemble être trop pour faire de l'argent l'affaire des passeports diplomatiques en e sport. l'enquête menée dans cette affaire entièrement blanchie le ministère des affaires étrangères et la présidence ces deux entités accusées à tort n'ont rien à voir dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques jamono jooju yëpp dégg ngeen opposition yi maanaam tey ñoom yàkkamtiw ñu lu dul guuta am wala dara am rek ñu joxoñ baaraamu tuuma kii di état du Sénégal ki di actuel gouvernement du Sénégal bi bëgg leen jam baaraamu tuuma mais ginnaw bu ñu sukkandikoo ci enquête bi kooku blanchir na kep ko xamanteni yaangi présidence blanchir na kep ko xamanteni yaangi fofu ci ministère des affaires étrangères ñu ci laalewuñu ñu D'après suñu élément d'enquête suñu euh, yor suñu loxo le cerveau de cette affaire est le secrétaire particulier d'un grand marabout d'une confrérie le plus du pays. Flairant la possibilité de se faire de l'argent, il interceptait des lettres courriers signées pour l'établissement des passeports diplomatiques. Il les scanne et, les fait des copies. L'homme a réussi avec ses documents à scanner et à tromper la vigilance des autorités chargées de valider ou établir l'édit passeports diplomatiques. Pour ce truchement, ce secrétaire particulier du guide religieux a fait juste quelques passeports diplomatiques. L'autre agent cité est engagé depuis 2014 comme un volontaire courtier, mais en réalité, ni la présidence, ni le ministère des Affaires étrangères n'est impliqué. L'affaire a créé la surprise générale, puisque l'esprit fertile de cet homme est hors de contrôle parce que tout simplement inimaginable. Seulement le président de la République, Macky Sall, et ses services tiennent à la bonne image du pays et de la gestion des affaires internationales, le rayonnement diplomatique du pays est précisément non négociable et l'homme de confiance du chef d'État. L'État général Meisse décrit d'une étroite droiture et servant de loyauté à la présidence ne badine pas, la légèreté n'est pas dans son jargon. En réalité, les faussaires utilisaient les noms des anciens dignitaires du président de l'Assemblée nationale et des ministres sous le régime de Wad Senghor en prétextant des maladies qui nécessitent l'évacuation à l'étranger. Avec ces entêtes, il envoyait des lettres et profitait de la compensation du président de la République. L'enquête a été commanditée par la présidence pour en savoir les tenants et aboutissants, d'autant qu'il est maintenant devenu très difficile de se procurer un passeport diplomatique. Ces derniers servaient d'intermédiaires entre la présidence et les services du ministère des Affaires étrangères et le cerveau est présentement identifié de manière formelle. Patience, l'enquête se poursuit, les responsabilités promets seront situés en vigueur muy scandale Bon, xamanteni ken kenn ko won lu ben secrétaire général ou ben marabout bu magamak bi nga xamanteni ni tarixa bu mu bok ñëpp ko xam ci réew mi ñëpp ko respecté mom mo fa nekkoon di utiliser ay faux manam dañ doon jël ay turu ancien dignitaire manam ay chef religieux comme ay ancien président assemblée nationale lañ doon jël sen tur wala ay anciens religieux comme Khalif général Layen bi faatu won ñu jël ay en binde ay lettre envoyé ko présidence mel ni bi moko yone wala ancien président assemblée nationale bi fi nekkoon tour wad jappel aussi passeport diplomatique kep ko xamanteni dignitaire nga won si Senghor batay tey am lo xamanteni représenter won nga ko ci rew mi tay am nga makama pour am passeport diplomatique parce que da nga représenter ce rew ñooñu nak turu ñooñu lañ doon utiliser ak turu ñu faatu yi defar sen en-tête changer ay numéro de téléphone binde lettre yone ko présence mais kat sëriñ bi kilifa diine bi dafa febar dañ ko wara évacuer France dar dar nonu lañ doon naxé vigilance bi pour am yenn passeport diplomatique mais ginnaaw bi affaire bi soulever présidence de la république ci boppam ñom ñoo soulever enquête infiltré ay agent dik ci biir ba xam ñan ñoo doon def faussaire boobu jàpp ni que japp nañ leen jamono ji enquête baa ngi poursuivre muy fausse affaire passeport diplomatique gi comme num leen ci waxé woon rek maanaam su ngeen sukkandikoo ci information yi fi jotam muy ministère des affaires étrangères taxewuñu ci laalewuñu ci muy euh, ki nga xamanteni ni di président de la république taxewuñu ci laalewuñu ci yëguñu tinuñu muy benn enquête dal bo xamanteni en réalité tay suñ ko sukkandikoo ci aussi suñ yenen confrères yo xamanteni

ba Amna jii ay cerveau yu ci japon amna ben haut euh, dignitaire bo xamanteni ni dafa nek en fuite koku aussi je crois que japp nañ ko d'appeler les éléments de l'enquête en possession le cerveau de cette affaire et le secrétaire général du euh, particulier d'un grand marabout d'une euh, confrérie les plus adulées du pays flairant la possibilité aussi il scannait toujours des euh, dafa doon scanner ay copie Madame di utiliser document yoyu suko ko scanner ba pare bind euh, lettre yobou ko présidence suko yobé yóbbee présidence instant bobu nak dañuy don foog ni que xëy na général Layène bi mo am ku feebar wala euh, ancien président assemblée nationale bi Wade Mamadou Sek, mom mo am ku feebar donc ñom lañ don euh, jox loolu donc suñ leen ko joxee après ñu euh, pour jéem ci am ay passeport diplomatique ba ci am na ñaari gendarme yoo xamante ni aussi identifié woon nañ leen foofu ba ñu déglu jël woon ci enquête bi mais ginnaaw loolu après libéré woon nañ leen am na ñeneen ñoo xamante ni aussi dañu war a dellu muy euh, dañu war a dellusiwaat ci enquête bi ndaxte enquête bi ba tey jii jeexagul muy euh, ñaari gendarme yoo xamante ni auditionné nañ leen pare mais delluwaat nañu libre muy toujours dans l'affaire des trafics de passeports diplomatiques deux gendarmes ont été entendus hier par la DIC euh, ils ont été libérés sur convocation ces derniers doivent repasser à la DIC et les trois civils arrêtés ont bénéficié hier d'un retour de parquet trois civils yooyu nag yaakaar naa ni du kenn ku dul euh, Limamou Laye Ali Ndao ak euh, Badara Sambu, ak Cheikh Arabi Samb ñoo lañ ci jappal muy ben opérateur économique tey jii scandale de trafic de passeports diplomatiques. bi nga xamanteni amna ci ministère des affaires étrangères ak la présidence diire na ci lu toll ñetti at arrestation ñetti agent département affaires étrangères yoyu moy ki ma leen wax légui muy Badara Sambu, ak Cheikh Arabi Samb ak opérateur économique bobu di Limamou Seck Ali Ndaw sont tombés suñu sikundiko tey jii dañ don attribué ay fausses lettres au nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou et ak Souti Touré ak défunt Khalif général des Layènes pour décrocher des passeports diplomatiques aux candidats ainsi kooku ñuy wax Kodou Ndiaye ak Yassine Fall muy ñaari fausse nièce yo xamanteni enchaîne ancien euh, ministre kii lañ ko muy ambassadeur Fallou madame maanaam muy Kodou Ndiaye ak yassine Fall lañu utiliser on tour ñu ne ay ñeesu ambassadeur bi lañu won di Fallou Nous aussi amoon nañu ay passeport diplomatique ginnaw buñu fayé fayee fukki millions ay ñaar muy 12 millions lañu fayon mafia mafia foncière nous ñooñu tamit soutenir lu tollu ci dix mille euros à la présidence après pour les fausses évacuations d'une autorité religieuse en en France bataille ci passeport yi ñaar ñooñu dañ doon dem président sax né kilifa diine Khalif général Layène bobu dafa feebar dañ ko war a évacuer alors que ba pare ñu jëlaat ci présence lu toll ci dix mille euros jaay ñële aussi euh, passeport diplomatique yi ci lu toll ci douze millions de francs CFA muy ay faussaires yo xamante ay turu jaamu la ñu doon utiliser utiliser nañu turu Fallou euh, Kan, utiliser nañu turu Souti Touré utiliser nañu turu Mamadou Seck ancien président de la l'Assemblée nationale utiliser nañu turu ancien xalif général des Layènes bi fi nekkoon ñoom ñëpp ñu bind ay lettre ci ay fausses en tête ba pare déposer ko pour am ay passeport diplomatique jàppale ni ko ñooñu ñëpp yoon teg na leen loxo ñaari gendarme présidentiel yooyu dig déglu na leen libéré na leen mais dañuy alors que ñett yàlla dañu bénéficié wu maanaam lépp lu ñuy tuddee retour de parquet jàpp leen que daal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu passeport diplomatique bi muy présidence muy ministère des affaires étrangères taqeewuñu ci laalewuñu ci ñetti faussaire la nag ki ko jotee woon mooy secretaire général benn sëriñ bu mag a mag bi nga xamante ni tarixa bu ma bokk ñépp a ko ràññee ñoom ñoo doon utiliser ay faux lettres maanaam ay faux tour di ko dugal di naan kii ñeesu diw la kii doomu diw la wala kii jabaru diw la dafa feebar dañ ko war évacuer daar daar donc loolu soo amee aussi président de la république dafa war a participer donc il faut jàppale ni que nañ loxo muy passeport diplomatique yi ngeen jëmoon kii di euh, Mamadou Biaye nag ak euh, Sall ak Boubacar Biaye passeport diplomatique juge convoqué le 21 décembre Inshallah. do